Euh, mbokk internet yi IYAT TV dal leen ak ay jàmm dalati leen ak ay jàmm wéy leen di abone saa su ne ngeen di am fii ay xibaar bi la yoon nag mën nañoo dal di dellusiwaat nag comme ni nga xam ne rek noonu lañ ko daal di waxee woon ci ay information kënekat kii nga xam ne rek moom mooy Cheikh Bara Ndiaye mën nañ ne fan yi ñu génn yëpp ñuy dégg ay rumeur yu nga xam ne rek kii di juge bi daf kaa may li nga xam ne rek moom mooy liberté provisoire waaye nag daa am mbir moo xam ne rek daal di na si xew ndax kii di procureur de la république dafa jël dogal ne kat d'accordul ci li nga xam ne rek juge d'instruction bu deuxième cabinet Mamadou Seck daal di na koy jël comme dogal waral nag mu daal di def appel waral kii di Cheikh bàyyeegun mu ñibbi këram faaw mu daal di xaar chambre d'accusation bu cour d'appel de Dakar ngir rek mu àddu si pour moom moomee ñu xam fan lay daal di mujjee bu ñu sukkandikoo nag ci ñi nga xam ne rek ñoom ñooy waa Seneweb mën nañ ne ay avocam ku ci mel ne maître Moussa Sarr nee na nag kii di Cheikh Bara Ndiaye dafay woy di descendi ci fi nga xam ne rek moom mooy kaso ba gannaaw nag ba procureur de la république daal de lanki na carré ne d'accordul ci décision bi nga xam ne rek juge bu deuxième cabinet daal dina koy jël maanaam bàyyi néggandiku boo xam ne rek day ànd ak contrôle judiciaire nekkat dafay ñëw saa su ne moom mii di Cheikh Bara Ndiaye di signe pour naka wane ne moom mii kat mi ngi ci biir réew mi dawul demul fenn bu fekkente ne nag mbir yëpp na mën nañ ne moom mii di Cheikh Bara Ndiaye dina daal di ñibbi këram wante kat bu ñu sukkandikoo ci xibaar yi nga xam ne rek moom lañ daal di jot a jukkendi ni kii sànq rek la muy firndeel moom mooy kenekat Cheikh Bara Ndiaye dina desandi ba si kanam ñu xool nag ba xam jamono bi ñu toll nii fan la wannent di mujjee ak ay gëtëm di leen di jaajëfal di leen di wax ngeen di wéy di abonné ba beneen ñu dikkaat ci yeneen i jàngat jaa ngeen jëf